ci réew mi ngir waxtaan ak yéen ci jafe-jafe yi ngir waxtaan ak yéen ci seen gis-gis ci politique émergence bi président de la république indi vacances citoyennes mooy commencé auto emploi reboisement citoyenneté mooy gëm suñu bopp jàppale ndaw yi ñu xool opportunité yi nga xam ne dañ koy am pour mën a am liggéey ci ngoon nga nag fu mu xajee rek ñu bégal leen té dama ci indi leen lu bess moy damay inviter ay artistes surprise ci biir affaire bi. ñi ngi wo ñëpp amul xajj ak seen ak fu way mëna bok li ci ëpp solo moy Sénégal gi ñu bok li ci ëpp solo moy Sénégal gi ñu bëgg li ci ëpp solo moy Sénégal fañ ko bëgg jëmé man Youssou ku may wër août ba 3 septembre. maa ngi ci biir réew Sénégal rek. application La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. jàngeen jëf ci ànd beeg seen télévision DTV 19h xabaaru marax yi la fees ci xabaar yi bokk na ca ni fexe ba gën a càmbar ñaata entreprise ñoo am ci biir Sénégal giléem nguur gi tey la ko tàmbali ci yëpp gox ci biir Sénégal njiitum réew mi président Macky Sall ni lu am solo la day tax ñu gën a xam koom-koomu Sénégal ana fu mu tool daañu ci ñëw ci biir xabaar yi ci nu mu gën yaatoo syndicat bi ñuy wooyee front syndical autonome mer ba futtu jëm ci seen jëwriñ ministre Mansour Sy lañ koy tuumaal mooy joxe ay koppar mu am ca xëj seen ñetti téeméer ci ay millions francs CFA la joxe ay syndicat ya ko neex euh, Sidya Ndiaye ñaawlu ko lool daañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi. leneen ci xibaat na ca bokk seen syndicat national des transporteurs yu Sénégal ñoom itam dañoo mere nguur gi lool la ñuy wax mooy daan dem ci ab geraw ba nga seen loxo fukki fan ak juróom-ñaar weeru ut gi ñu nekk nii buñ ci àggee la ko indi mooy nguur gi sàmmuli kàddoom dañoo gis ni seen nekkin la ca ne ci ay gàllankoor dafa bari daañu ci ñëw ci biir xabaar yi daañ ci boole itam lu jëm ci vacances yi école tëj na élèves yu jóge ci dëkku kaw yi ñëw ci biir réewu taax defi daan seen dooleem dañu bëgg mooy am weccet buñ mën a waajali seen ubbite école seeni i waajur rafetlu ko lool daañu ci ñëw cen nu mu gën a yaatu yaatoo fàcce gi jàngeen jëf cand beek ñun ci seen télévision DTV ñu tàmbali xabaar yi jëm ci natt bi nguuru Sénégal jógtee tàmbali ko tey ci yëpp ngox ci biir réew mi ngir kon gën a xam ñaata liggéeyukaay mën a ci biir Sénégal muy entreprise Sénégal yi lañ ca bëgg mooy xam dëgg-dëgg Sénégal fu mu toll ci wàllum koom-koom njiitum réewum Sénégal Macky Sall ndoole lu am solo la Codé Ndiaye fexe ba jël ay dogal yi mucc ayib ñeewal politique publique yi maanaam politique yi ñuy lal ngir rek jëmale askan wi ci kanam waaye itam fexe ba réactualiser li nga xamante ni moom mooy base de données ngir rek mën a xayma am amu réew mi loole moo tax a jóg agence nationale de la statistique et de la démographie mu fas yéene koo jaarale ci li ñuy woowee recensement général des entreprises maanaam xayma entreprise yi nekk ci Sénégal ñaata lañu njiitu réew mi président Macky Sall di dellu ci solos projet bu kiy ñaw xamoo kuy def coiffure xamuloo ki yor mbaar te lépp li ñuy liggéey koom-koom la ci réew mi dañuy jàpp réew mi ne réew mu nasax la réew mu ñàkk kattan la te nag dañu war a mënal suñu bopp loolu mooy suñu ambition. tey jii artisan yi bu ñu xamee xayma bi dinañ mën si budget yi ñuy def la ñu planifier yan mbir lañ leen di jox yan liñ de crédit waaye boo xamul ñaata lañu

Euh, mais gis nañ ne aussi am na segment wu population ñu wax nag euh, ay tur mais ay segment wu ci euh, population bi yoo xam ne ñoom daal refus catégorique la daal. lu ëpp junni ak ñaari téeméeru agent enquêteur ñu ngi wër ci dëkk bi ngir mën a xayma ñaata këru liggéeyukaay ñoo nekk ci Sénégal objectif bi nag lenn la mooy fexe ba yeesal base de données ñeewal chiffres yi ci wàllu économie ndaxte daal chiffres yi fi nekk depuis 1999 lañ leen amaloon. Codé Ndiaye jaajëf leneen ci xibaar mi ngi jëm ci nguur gi ak syndicat yu Sénégal yi fi mu toll nii tembe coow moo juddu la ko indi mooy ministre bi dénk wàllum xëy mi Mansour Sy la nduur baaraam ci wàllu guni mel Sidé moom moo jiite FGTS nee na fi mu toll nii tembe ministre bi Mansour Sy dafa def mbir mi séddale bukki 300 millions francs CFA nguur gi jël di ko dimbalee central syndical yi dafa tànn ña ko neex jox ko ay koppar lii moom métti Sidé Ndiaye mu ne nag loolee nekkul lu jaaru jot na nguur gi indi ci ak faram ci teewaayu Ousmane Ba. waa front syndical autonome joxe nañu baaraamu tuuma jëwriñ ji di Mansour Sy yor wàllu liggéey ne dafa luubal ñetti téeméeri million si suñu koppar jagleel ko central syndicat yi. yéen est-ce que yëg ngeen bu ñuy joxe xaalis bi est-ce que yëg ngeen ko mais ci Sénégal lañ nekk nag boo jëlee ay xaalis bu toll nii 300 millions muy fonds public nga jël ko nga joxe ko kenn yëgu ko kenn yëgu ko day dafa toog rek woo gars yi te président dafa ne woon na woo ñëpp ñu waxtaan defu ko ñun dem ci bureau di ko xelal di waxtaan na moom mu ne waaw débat amul mais Mansour Sy moo ñu moom wala alal bi moo ko moom mais dinañ wax fu ko dugal. ki yor seeni kàddu ne amul benn firndeel buy wane koppar yooyu ñu seddale kenn xamul si 300 millions ku nekk li nga am ñeenti mais loolu dafa war a leeral d'abord c'est le minimum. waa nu mu war a demee mooy euh, comme euh, fête premier mai bépp centrale bu participé woon ci élection yi. parce que am na central yu bees aussi ñoo bokkuñ ci élection yi ñu jàppale leen parce que subvention boo ko boo ko tuddee rek ndimbal la waxuñu ne dañuy régler say problème yëpp mais dañ lay dimbali pour que nga mën a jël yenn fonctionnement en charge. liggéeykat yooyu nag bokk ci front syndical autonome te ëmb fukk ak juróom-ñaari central syndical dinañu amal seeni plan action ngir ñu dégg leen. plan d'action bi nag comme ni ma ko waxee bu si dañ jiite réew mi waxu ci dara danañu plainte Mansour Sy ci tribunal sénégalais balaa ñuy dem fenn d'abord. parce que pour nous, tant que nous, un détournement de fonds si nous faire ministère de de protestation manifester nous aussi saisir bureau international du travail pour xamal euh, ministre du travail le gouvernement Sénégal nous jël nañu contre syndicale. centrale syndical autonome jaajëf leen ci syndicat yeeg nguur gi coow li jeexagul ndax syndicat national des transporteur yu Sénégal ñoom dañoo mer ba futt jëm ci nguur gi nee ñu nguur gi lam leen waxoon defu ko sàmmuli kaddoom moo tax seen ay nekkin bari jafe-jafe lool moo tax it ñuy ñoom dañu dem ci banqam loxo bon àggee ci fukki fan ak juróom ñaar ci weeru ut ñu nekk ni dañu dem ci ab geraw lànk ba ñu fesee xànc ak morom ja ngir bëgg nguur gi dégg leen dañu nag lii ab lancement rek la ba mu saafara dañu ko dellu dàbbali dañuy ànd ak kenn ci ñoom mu jël syndicat woogule muy Alassane Ndoye am na lu mu dénk DTV problème douane bi naa ko résumer mooy oto bi day ñëw si port bi douane bi wax nii eh, lii ngeen war a fay ñu fay ko ñu génn oto bi mu jox ñu CMC ñu dem service des ñu defar liñ ci war a defar ñu dem impôt et domaine ñu timbré ñu dellu service des ñu jox ñu numéro ñu dawal oto bi nag. ba weer wala ñaari at ñi ñëw ni oto bi baaxul ministre du transport moo waroon a jóg xool li nga xamante ni bii mooy jafe-jafe transport mais moom yàlla dogal na moom xoolul loolu parce que boo seetee tey ah, alu taxi yooyu ñuy wax képp ku am particulier léegi mën ngaa liggéey ba wàcc joxe sa oto balaa asamaan a set chauffeur bi indi la bi 2000 francs boo demee croisement Cambérène soo demee croisement Pikine dama ni Dakar foo fi bëgg a dem liberté bi oto yi ñoo lay yóbbu te ay ay ay 4x4 ak façon oto bu nekk léegi ñooy def transport loolu nag laissez-passer yi comme ni ko waxee oto bo xamante borom moo ko di dem njaareem moom di dem këram nga ni ko bala ngay dem di nga jàdd te ngay joxe téeméer mbaa nga dem central joxe ñaar téeméer te mom moom otoom laissez-passer bi pour lan la le 17 août daal nu ngi leen di ñaan nu ngi lay ñaan sa oto laneen ci xibaar ñu des ci banlieue bu ndakaaru jàpp leen ni secteur informel bu Sénégal maanaam baana baana yi yëngu ci seen yëngut bopp ci biir réew mi lu néew néew ñu ngi dugal ci biir Sénégal juróom benn téeméeri milliards ña ko xamle nag mbokk na ca ministre Alioune Sarr min dénk wàllum commerce njënd meeg njaay meeg baana baana yi mu ne kat kon jot na nguur gi gën a def kem kattan ba gën a jàppale ñooñu le bokk ci Sénégal ci dugal koom-koom gu sakkan ci biir réew mi dañ ciy xuus ànd ci ak Abdoulaye Wanyanga

dañ ko jagleel entreprise ndaw yi particulièrement ñu naan secteur informel maanaam ñi nga xam ne dañu yore entreprise am ñu kayit. petites et moyennes entreprises yi dañoo nekk loo xam ne lu am solo la ci croissance économique bi lu ni mel moo waral ba seeni acteur dinañ soxla rek ñu jox leen ay jumtukaay. ndax tey boo jëlee secteur informel ñu bëri ci ñoom xamuñu naka la ñuy defee par exemple lu jëm ci appel d'offre marché public mais baax na ñu tàggat leen ci yu mel noonu am na ñoo xam ne euh, pour dem ci banque xam ñu ne naka def dossier de financement bax ñu tàggat len donc jagle social amna na ci côté googu. mu ñew tv bobu len dajé présidente du haut conseil du dialogue social dafa rek dal di ñaax askan bi ñu duggal seen loxo bu baaxa baax ci naka lañu ñu sukkale euh, petites et moyennes entreprises yi. réforme boo ko def do teub rek. ne dëll teg ko da ñëw waxtaan ak nit formalisation ñu bëre ñu ngi ko bëgg mais xamuñu lan la leen di indil bu ñu formaliser lan la am lu ëpp lu am lii bu ko defee ñun dañ leen di expliquer. ñoŋal économie suñu réew nekk na loo xam ne lu am solo la waaye secteur informel bi eh, dina ci am taxawaay bu am solo lu ni mel la nguurub Sénégal xam ba ñu jagleel rekk boobu le secteur. ay jumtukaay yoo xam ne dina tax ba ñu ñuŋal suñu économie. jaajëf Abdoulaye Wañanga jóge ca Géejawaay xuus jëm ca Mbuur ànd faak ma Diop foofee jàpp leen ni ña fa nekk ni ay soxna di ay jàmbaar nekk ca Mbaling di fa rek lakk keccax ak defar géej ñoom jot nañ jumtukaay gu am solo muy daal luy tax ñu am courant jële ko ci liggéeyukaay bu samp ca gox ba di yëngu ci wàllum énergie solaire ñoom nag jigéen ña jot nañ jumtukaay bi dana ko rafetlu lool reportage Mamadou Diop. ay weer gannaaw ba ñu taxawalee parti bi di ëllëg Sénégal taxawal nañ nag bi yoon kuréel gi nga xam ne moom mooy lënkale liggéeykat yi nekk ci biir parti boobu mu nekk nag premier organe bi nga xam ne parti bu bees boobu am na ko. loolu innovation la tey ñu jël suñu suñu organisation politique dugal ci forum pour l'artisanat et émergence économique nga xamante ne ci biir waxtaan bi duñ fi wax waxu politique kese dañ fiy wax dañuy jox kaddu gi artisan sénégalais yi ñu wax ak seen ministre wax ak seen directeurs yi ñu xam lan mooy seen mëbët ak seen yéene su ko defee ñu mën ko saafara ñoom tamit ñu xam li askan bi di dund xam li askan askan bi di yëg. occasion la woon ci ki nga xam ne moom moo jiite APDA xam le ne artisanat bi fi mu nekk nii war naa mën a nekk solution ci ñàkkum liggéeyu ndaw ñi ak lép li nga xam ne ndóol gi am ci biir réew mi. parce que man gëm a maanaam usine la buy tabax plus-value bu dee employabilité maanaam bu dee utal doom suñu rakk yi yi nga xamante ne tey ñàkk xëy mu leen sonal ci réew mi yaakaar naa ne artisanat bi buñ ko organiser def ko ay TPE def ko ay PME def ko ay PMI je pense que mën na résorber gabu chômage bi ci réew mi yépp Pape Amady Ndaw xamle na ne ngir ñu amal loolu nag il faut lu jëm ci wàllu commande bi nga xam ne jëm na ci wàllu mobilier ñu jox ko artisan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi. parce que loolu président de la République xam na ko te buñ ko ci gungee jàppale ko ci dina ci dem parce que bi mu faloo la wax ne dinaa jël 15 pour cent de la commande publique dénk ko artisan sénégalais yi waaye tamit teg na ci ne ñooñu nga xam ne ñooy artisans yi il faut que ñu préparer leen bu baax a baax ci lu jëm ci wàllu concurrence bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir réew mi. importation bi li mu baree ci produit yooyu mu ñu commencé ko wàññi. pour que ñun suñu artisan yi di am marché bu ñu ko jaayee. ndaje bi nag jëwriñ di dénk wàllu formation professionnelle ak artisanat moom moo ko teewee woon Mamadou Talla xamle na ne département bi mu jiite jël na matuwaay yépp ngir fexe ba artisanat am doole ci biir réew mi. jaajëf Mamadou Diop ñu ngi jégalu Mamadou Diop doon wax ci mbirum rek parti buy fexe dajale ay militant jëm ci wàllum artisanat yi ñu war koo mën a boole da ñëwaat ci mbirum jigéen ñay lakk ca cax ak géej ca gox bi nga xam mooy mbuur nekk ca lan jot ci jëmtukaay xibaar yi wii ci benn wàllum ñuy wax ci li nga xam moo soxal ministère bi dénk wàllum paju ci biir Sénégal muy santé ak action sociale dañoo lëkkaloo ak bànqaas bi nga xam mooy coopération japonaise du JICA ñoom dañoo boole seen i doole def waxtaan ci biir Ndakaarum waxtaan ba nag ndajem la ëngam loo loo sotonte xalaat ku nu indi xalaatam luy tax ba juróom ci ay réew yi bokk ndaje mu ni mel mën a am xalaat ak xam-xam gu wér jëm ci wàllum paju gi lañ ci bëgg mooy rof leen doole ak kattan ci teewaayu sa dex topp fexe ba waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy directeuru hôpital yi lee ngir ñu gën a mën a saytu seeni hôpital lii de moo waral ndaje bi lee Sénégal sax moom ci kaw loolu dalal naa lu toll ci juróomi dëkk ngir ñu gën a renforcer capacité technicien yi nga xamante ne ñoom ñoo yor maintenance yooyu. ñu fi indi tey naam mooy li ñuy wax maintenance xëy na nag maintenance buñ koy wax. li ci ëpp yëpp dañuy defee ni dañuy xaar ba lampe bi fay wala équipement bi doxul ñu songu ni maintenance technicien bi fu mu alors que maintenance bon, ba depuis le euh, au ministère de la santé nous avons une politique nationale de maintenance pour xam ni bâtiments, bâtiment équipements, équipement ci biir hôpital centre de santé bi quoi, ñi nga xamné ñoo di coopération japonaise di JICA ñu nekk en partenariat avec ministère de la santé et de l'action sociale ñom kat duggal nañ ci seen loxo ndaxte kat fexé nañ ba former ñi nga xamné ont rek ñoom ñoy maintenance hospitalière yi depuis 2008 donc nous appuyons donc le centre de maintenance hospitalière à atum 2008 ba dalal centre maintenance hospitalière bu Diourbel li ko taxoon jóg tagat gën nga ni fay yëngu wérgu yaram lu am solo la jang tamit waye nit bu wérul du mëna jang euh, n'est pas saine. Euh, euh, n'est pas en bonne santé euh, il ne peut pas étudier. atelier bi le côté de moi ko tax a jóg mooy fexe maintenance biométrique waaye itam Katanal, capacité technicien yi le ngir hôpital nous ñu gën tout. laneen ci xibaar ñu wéy di xuus ci biir Sénégal jàpp leen ni koppar bu toll ci benn milliard franc CFA la nguur gi génne ngir nag ba ko def ci askan wi fexe ba seen aw nekkin gën a mën a mucc ayib lépp jëm ci wàllum pajo gi ministère bi dénk wàllum pajoog fagaru yi tamit gis ni daal am na ay jëmtukaay yoo xam mën ñu ko ñàkk muy ay produits yoo xamante ne bi faaw askan wi mën koo jot ci bërëbu fajukaay yi Adjara Cissé Nous finançons ko le lu toll 1 milliard ci suñu koppar at bu programme Yexina, au ministère de la santé ak action sociale nous ñu lëkkaloo ak secteur privé bi dinañ def seen manager ngir mën a jox 1247 postes de santé ay garab yoo xamante ni njëg li day yomb te sakkan loolee. mën itam couvrir euh, postes de santé Nous euh, nañu yaakaar ne fileeg janvier 2017 daañu mën a. couvrir euh, garab yi nga xam ne ñoo war a nekk yëpp ci poste de santé bi mën ko faa yóbbu askan bi mën a faju réew mi yëpp la concerné kon ñu fexe ba poste de santé yi nga xam ne fépp fu ñu mën a nekk rek ñu mën a jot ci garab yi. ñi ñu ko nar a jox nag bokk na ci district santé bu nekk yileel dogal nag bokk ci troisième phase programme yegg na nga xamante ni dina tax rek ñu xeex bu baax garab yi nga xamante ni ñu ngi koy jaay ci mbedd mi tey teguwul ci yoon. programme bi am na solo ndax li gën a waral euh, garabu mbedd yi dëgg la euh, askan bi suñ ci demee li gën a bare dafa fekk xëy na léelée léeg euh, garab gi fii nga xam ne foofu lañ ko soxla waaye am nañu yaakaar ne bu fekkee ne góor góorlu nañu ba askan bi waxtu bu demee di faju ji fekk garab gi fi mu ko war a fekk ca palaasam am nañu yaakaar ne dootuñu soxla di dem ci mbedd yi di uti ay garab. ñu nar ko tàmbali ci jeudi ji ca Mbaaw dina nag wër Sénégal bi yëpp fii ak weeru janvier 2017 programme bii nag yegg si na dina dem ci gox yi nga xamante ni moo gën a ruqee ci Sénégal ñu mën ci sax ràññee ñàkk pharmacie régionale bu Kédougou Kaffrine ak Sédhiou. leneen ci xibaar mi ngi jëm ci wàllum koom-koom nus mën a def ba gën a boole doole yi ba Sénégal te ci tànk yi koom-koom la ñuy wooyee Sénégal ñu mën caa suuf bu wér ministre bi ñu dénk wàllu njënd meeg njaay mi di Oumar di Alioune saar ñëw ci wàll gu mel moom itam ci boppam gis na ni faaw ñu gën a jàppale liggéeykat yi waaye tamit daal gën leen tàggat ba seen xel gën a xarañ jëm ci wàll gi ñu teewlu ministre aline Sarr am na lu mu dénk Fatou Bintou Diagne. weer yi di ñëw incha allah aéroport bi nga xam ne moo nekk Diass dafa ru ubbi te aéroport su ubbee ci ab réew li ñu naan industrie daa am industrie boo xam ne da koy taxawal maanaam du avion buy ñëw rek avion baa ngi ci. avion bu ñëw ci réew yu bëree nga ci biir ay service ñu koy jox waaye da am ay sociétés yu bëri yoo xam ne dañuy dem ci wër aéroport bi muy ay restauration muy ay formation muy ay sant commercial ak yeneen ak yeneen waaye citoyen bi nga xam ne moom moo dëkk ci réew mi ba moo dëkk ci région ba nga xam fa la bi nekk moom it daa am loo xam ne aéroport bi da koy jur ci dundinam am na ñoo xam ne seen gox day gën a am valeur ndax soo seetloo fépp ci àddina fi aéroport nekk boo fa doon am terrain bu doon jar benn day jar fukk kon képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci la wër aéroport bi xamal ne fa nga dëkk moom bu ko sàggane ndax am na valeur boo xam ne valeur bu am solo waaye ñaareel ba citoyen yi nga xam ne ñoo dëkk ci réew bi nekk ci koom-koom aéroport bi da leen di yombal seen dem ak seen dikk kon li ñu naan exportation maanaam mën a jënd ak jaay bitim réew day gën a yomb également ca réew moom loolu day indi koom-koom day indi croissance économique looloo waral parti politique yi nga xam ne ñoom ñooy laaj baatu askan wi pour diriger réew mi baax na yu mel ni bu jotee ñu xamal askan wi kat léegi kat am na solo solo bu am solo pour que ñu mën cee góorgóorlu ku nekk ñii ngembu ñi takk seen tubéy pour xam ne lii kat wax dëgg yàlla Sénégal am na jumtukaay boo xam ne buñ ko indee dinañ mën a yokk seen koom-koom. lu jëm ci wàllum njàngum Sénégal jàpp leen ni ñu ngi ci vacances école bi tëj na élèves yi jóge ci seen i dëkk ñëw ci dëkku taax ngir war faa mën a daan seen dool di ko ci koccal ndànk-ndànk ci vacances yi ñu bari ci ñoom dañ koo def ngir bëgg bu école ubbi watem ñu mën a am weccet bu mën a jëndee ay fourniture ngir duggaat ci seenum njàng mu doon loo xamante ni bii waajur yi dan ko rafetlu lool ndax nañu moo gën nekk ci ay caaxaan ki pom reportage soxna Kaloga jàmbaare loolu gëm seen bopp élèves yu bare di profito ci vacance yi pour dugg ci dëkk bi ut liggéey ngir gën a mën a waajal ubbite école yi pare nañu ngir def bépp liggéey bi nu mën ngir am xaalis bi nu moomal seen bopp xale bu jigéen bi toll ci classe terminale mi ngi jóge dëkkam ngir mën a jàppale ay waajuram waajal loolu di ubbite école yi. daan sama doole parce que damaa bëgg a préparer sama sama fourniture maa ngi def terminale. préparé sama fourniture ndax ndax fourniture yi seer na trop té pour mes parents amul moyen motax ma ñëw fi pour dan sama doole. école mo tej motax ma ñëw fi di liggéey pour am jom pour ouverture école man mécanicien la liggéey. vacances bu ne la fay def. ñom ñi ngi def lepp ngir mëna am xaaliss pour préparer yoyu ubité école. so amé say wajur té mënu ñu la yalla baxé té école tëj da ngay dan doole fas jom. jënd say fourniture dimbale ko ci euh, li nga xam ne moom la war a def ci école bi te mënu ko yow nga dimbale ko ci jël say yére jël say fourniture tubaar kàll li nga war a sa waajur waroon def ci école bu yëpp comme yaa ngi daan sa doole rek yow nga def ko soo ko defee dimbale nga say waajur dimbale nga say bopp te ci nag am jom. su la yàlla dimbalee ngay jàng école su école tëjee da ngay dugal sa doom dina toog un mois ou mois trois mois doo commencé waat jàng. mu dem un mois su ko noppaloo mu ñëw jàng métier suñ ñàpp jàngi métier un mois ba un mois et demi après nga uti lu mu def mu dem dugaat cours de soir cours de vacances yi jot na mu dem dugg ko su yeggalee noonu. muy lu way jur yi rafetlu loolu si taxawaayu bi ndaw yi taxawoo wute loolu ak yenn si seen morom yi nga xam ne vacance foo rek lañ ci def. jaajëf soxna Kaloga jamono ba nga xamante ni bi école bi tëj na élèves yi nekk ci vacances ñi itam ñu ngi waaj dem ci vacances mooy sunu député yi ñoom représentant du peuple yi ne ci pencum ndaw réew moom ñu ngi waajal dem ci seen i vacances ñoom itam moo tax El Hadji Moussa laaj na leen ñoom seen i vacances nunu ko nar a passé reportage ak dallu yëlleef la pour liggéeykat bu nekk ñoom député yi nga xam ni nag wareef la ci ñoom vacance dañ koy dégg dong ci seen ay kaddu saa su ne ñu ngi cee yëngu-yëngu. vacances yi daanaka mu suñ ko tuddee vacance day day nuru sax ne euh, da ngay dem rek euh, benn plage nekk foofu comme ni ñuy tuddee di vacances mais du demee noonu. démb laa jógee par exemple Maroc euh, ba ma fa demee dawuma fa vacances parce que tous les jours maa ngi woon di waxtaan ak sénégalais yi. ñun ñëpp xam nañ ne nawet bi. mooy jamono joo xam ne coono yi ci la ëpp feebar yeeg mbënd meeg coono yu bëri ci la ëpp donc euh, tey la ñu gën a war a taxaw ci wetu askan wi donc vacances amuñu ko foog naa de vacances daal ak député àndul. naam yombul ñu am dallu bi war waaye ñi le temps bu ndaw bu ñuy am dañ ci profito ak seen njaboot. le fait que nga toog vacances yi ak say sët ak say njaboot ak say doom lu mu diir bi gàtt gàtt gàtt loolu. xéewal bu mag la te ñu ngi ci sant yàlla. maa ngi sant yàlla aussi ren ji war naa dem pèlerinage en terre sainte loolu aussi mu nekk euh, xéewal bu mag a mag a mag si man. député bi liggéey laa député comme toute personne muy liggéey normalement bu session ubbee bu xëyee huit heures li ci ëpp minuit lay wàcc xam nga kuy xëy huit heures di wàcc minuit defe naa li ngay jege sa famille wala ngay jege base bi bëriwul donc loolu moo tax. mois de vacances yi ñu ngi ciy profité pour gis suñu famille ñu ngi ciy profité pour gisaat askan wi. ñom ndaw penjum rew mi nak daanaka ci liggey bu metti lañuy nek diruk juroom ñenti wër yi nga xam ci lañuy amal session unique bi. rax si dolli munas nañ leen convoquer sa su ne diirug ñetti wër yi ñuy jël vacances comme ni ñu ko défé ni ci ouverture session extraordinaire bi nga xam amal nañ ko ci alarba ji mu jëm rek ci kuréru wër gu yaram yi ak it ñal gëstuk budget électoral bi. El Hadj Moussa Beye dugg ci wàllum tàggat yaram xam ngeen ni fi ñu toll nii kuddu ci boppam doon na amal ay xumb xumb ngi daal di sargal ay tàggatkatu yaramam maanaam ay joueuse ay joueuse mu doon kon jongante yoo xam doon ko defee léegi gis nañ sax nga xam mooy kon Kankou Koulibaly moom moo daal doon reen bi ci wàllum rek basketball ci biir Sénégal de 2016 moo tax it dañ ko daal di def sargal bu am solo directeur kuddu nag nee na dana gën a daal dàbbaliwaat prime yi gën a jox xale yi ay neexal ngir ñu gën a farlu Adja Anta Dieng ab di manam bur bu bi ci walum basket ci réewum Sénégal ku am war ko fété lolé tax duchesse yi ñom ñëpp daal di mobiliser wu fële ci place du souvenir ànd ak président ak ki di directeur général coute sargal sargal euh, reenu basket 2016 bi nga xamné dañ ko tànn mu nekk ci biir équipe bu sargal ko sargal ko moom ak ay ñoñom yi nga xamné ño bok bokk équipe bi comme jël nañu lépp lu ñu waroon jël ci Sénégal nañ dem Afrique parce que DUC tamit bu ñu kenn fàtte ne jël nañu Coupe d'Afrique des clubs lu bari gëj nañ faa dem ci ay moyens doon tax mais ren ñun DUC DUC dinañ ko jàppale ñun waa COUD ak waa université ak ministère de l'enseignement supérieur de la recherche. mu nekkoon ab occasion ngir ren bi daal di mën a fësal mbégteem. je me sens bien je suis très très contente pour pour euh, organiser cette fête. kontaan naa lool li ko may moy euh, dama suivre conseil yi sama mag yi nek ci Mali don ma jox di Amsatou Maïga ak euh, Sadio sankari dàqu ma basket sama morom yi dafa woné rek ni suma nek ci terrain bi fulla ak fayda rek la ci woné je remercie tout le monde. ci loolee ki di directeur COUD daal dinay ñaawlu violence yi amone keroog ci coupe du maire. coupe de la mairie eh, li ma ciy wax bu fekkee duñu jël langue de bois rek dañuy wax rek mooy sport sport la am na lu mu àndalul àndul ak boo koy def da ngay def da nga koy def ci biir mais ñëw li ci rax keroog ñun dañuy yedd nañu suñuy supporters. ne leen bu ñuy nangu ci provocation. Kanku Koulibaly di basket ci Dakar Université Club mu ngi wuutu kii di Ndeye Sène moom mi nekkoon buur bu jigéen ci wàllum basket ci atum 2014 titre bii nag bu ñu ko woon ci at bi ñu génn. jaajëf Adja Anta Dieng waaye itam jàngeen jëf bokki ànd ak ñun ci sunuy programme lii moo la flaat xabaaru marax ci seen télévision.